Bonjour Abiba. félicitations. merci beaucoup. kontaan kontaan nga. waaw waaw. est-ce que xam nga nit ñoo gën kontaan sax que que yow je sais pas euh, est-ce vous avez remarqué ça quand on a su que. oui ñun ñoo gënoon sax. Euh, comme si suñu bac la quoi. oui c'est vrai c'est vrai que vraiment la famille ñëpp kontaanoon les fans. ñoom ñoo ko gën a fête sax comment. c'est sûr c'est sûr. tout d'abord maa ngi leen di nuyu vraiment waa plateau bi voilà ça plaisir de revenir tout le temps. qu'est-ce que ça te fait euh, nekkoon di. préparer examen bac bi metti woon mais en même temps nga am euh, carrière bu diis boo xamante ni xam nga nekk nekk xale di gérer sa carrière yombul euh, je sais pas quoi qu'est-ce que ça te fait euh, boo demee ba décrocher bac bi d'office ci bac bu jafe woon nii Bah, donc je me, je me sens fière d'avoir rendu fière beaucoup de personnes, mm -hmm. euh, ma famille surtout, mes fans, vraiment parce que ñoom ñoo gënoon am pression. Mhm. bon moi ça va dama ne woon bon lu yàlla def baax na. Mhm. mais quand même j'avais fait le nécessaire et c'était pas facile Babou Reine c'était ah, c'était pas facile du tout. et surtout que pendant toute l'année c'est pas comme si da nga arrêté woon di def ay concerts wala quoi que ce soit da nga doon allié de yëpp. comment tu trouvais le temps pour réviser. waaw noo ko organisé woon man loolu moo ma jaaxal. c'était très chaud cette année vraiment. non parce que bu dul dara sax à deux mois du bac j'ai dama def benn benn opération aux amygdalites ah bon? donc j'ai fait un, un mois sans partir en cours donc moi j'étais sous pression carrément <laughs> mais bon je me suis dit que yàlla baax et il y avait vraiment des camarades de classe yu baax Pauline Thiam qui m'amenait tout le temps les cours pour m'aider je révisais pendant que j'étais voilà à, à la maison ouais. et c'était pas facile mais alhamdoulilah alhamdoulilah Euh, j'ai eu euh, une mère qui m'a toujours épaulée, une sœur qui, qui est aussi mon manager qui a toujours été là pour moi. Mm -hmm. Des frères et sœurs, des meilleurs amis qui sont toujours là pour moi. Donc, tout me à ce point, mais bon, ñoom laa ci doon sóoraale. ah bien sûr ñoom laa ci doon sóoraale. non pression bi feneen la doon jógee quoi parce que bu ko woon décevoir ñi nekk sa ginnaaw. non je voulais pas je voulais pas. donc ban ban sujet nga def euh, ci bag yi man xamatuma sax man affaire yi di demee benn ah. sujet la wala plusieurs sujets ah daa bëri ay matières. oui ba c'était chaud philo moom c'était ma matière mais bon. Uh-huh. li ma gën a bett mooy philo euh, j'avais la meilleure note en classe. Mm-hmm. je viens au bac on me donne sept en philo. non. <laughs> j'ai fait ça pas. man de zéro virgule cinq laa ci daan am te maa gën a neex ñëpp ay histoire yu gros bidon laa doon nettali. je te jure garaaw non en fait c'est moi je pense que prof bu c'est des avis qui se voilà donc philo moom classes. nga ñëw bac am sax problème. du problème mais de philo oh. qui disaient ouais c'est bien ce que t'as fait c'est ça minimum tu auras 12. il faut ok confiance bi dëgg la quand même j'ai eu le bac c'est l'essentiel léegi léegi léegi résultat yi raconte nous un peu on a envie de revivre ça euh, bi ngay dem di ko jëli euh, euh, nekk comme ñëpp taxaw di xaar voilà tu étais comment <laughs> bah là j'avais la pression vraiment mais bon bi may dem moom la veille sama waa kër kenn waxul ñoom ñëpp a def teg parce que man ak sama mag bu góor ñoo doon defandoo bac mhm. donc c'était vraiment la pression à la maison te moom day rab man may wëy <laughs> donc là mon père mon père dans sa tête a bu doomi amul rek ne monsieur Diop moo sàgganee doomam bi di leen wéyloo voilà donc man ak moom ñëpp on était stressé macha allah et bon man maa dem moom demul <laughs> ñemewul dem donc man ma dem taal sama son nit yi di stressé ma gis ñëpp tiit man ma teg samay son waaw di déglu quoi di déglu di fecc et genre euh, après biñ ne approché là j'ai raté vraiment benn euh, seconde carrément là raté j'ai pas non mais c'était c'était autre chose mais heureusement il y avait Papitia mon meilleur ami à mes côtés mm. Mimi et ma fille Rassi et donc on est parti et c'était c'était c'était incroyable. macha allah c'était incroyable <laughs> ba heureusement nga am ko donc arrosage bi retrouvaille pour fan si le 3 août. le 3 août on va en parler dans quelques minutes et exclusivité bi mooy euh, xale màgg na dinañ leen ko won euh, mais tey da nga bokk plateau bi ak koo xamante ni peut-être da ngay dégg papaam. Laba Socé est-ce que tu as connu Laba Socé. Euh, tu l'as pas connu mais dégg nga dégg nga ko waaw. comme ban woyam par exemple. Binteg Sall man boum boum émotion tin tin tin bonjour Bijou. bonjour Pape ça va naka affaire yi. ça va Bijou Socé. bëri xamuñu woon ni doomu Laba Socé Laba Socé am na doom buy doom buy woy affaire ah. yaa ngi dëkk yaa ngi dëkk France euh, ñëw Sénégal actuellement tey nga jaar fi pour wax ak ñun ci euh, sa ay euh, projet d'abord pourquoi nga nekk doomu Laba Socé pourquoi nga dëkk France ak pourquoi ngay woy. <laughs> bon foog naa premier bi doo ci mën vraiment donc la doo la mën a tontu en fait ouais je je je j'habite en France je vis en France en fait donc j'ai commencé à faire la musique non la chorale depuis toute petite. ah chorale nga commencé donc ouais j'ai commencé à chanter. Euh, Euh, comment dirais-je, à Bourg et voilà. Après, donc du coup, bah, moi, de France avec mon bac et tout. Donc, euh, je suis aide-soignante en fait. Mm, mm. Donc, ouais, aide-soignante dans une maison de retraite. Donc, du coup, après, euh, dañ dem def ay euh, fête des fois. Mm, et donc je je chantais avec les mamies papi donc euh, voilà après dañoo invité woon benn. Euh, association, nous nous ah, eh bah, tu as une très belle voix, pourquoi pas ne pas chanter mhm. Alors je dis, je faisais la chorale, mm -hmm. donc bon, mon fils, il a samba et tout pour euh, rôle mes euh, Oui, parce que mairie du mairie du film. Oui, c'est ça. Je dis que non, C'est pas sûr. <laughs> Vraiment petite africaine. Oui, c'est ça, non, le Mère, tu vas bouler les gars, Ah. mais mais mais en fait <laughs> finalement lan ban style voilà <laughs> alors man je fais de l'afro. oui dañuy def ay euh, euh, je fais de la variété en fait. d'accord donc euh, je fais partie d'une association pour boo xamante ne lépp la ñuy def. Eh mais on chante souvent en français. Mm. ouais on chante souvent en français donc c'est ça. est-ce que fent nga ay way ci wolof. oui oui. d'accord fent naa trois. je pense que occasion la occasion la pour ñu découvrir pour ñu ko xamagul parce que am na. am na ay nit yu xam bijou euh, on va écouter un extrait euh, euh, benn ci ay woyam parce qu'elle a beaucoup de talent on écoute ensemble mu nekk découverte pour pour certains petite africaine yaa ma gënal xale yi doo seen morom yaay sama joie sama reeni xol oo oh, Seyni Seyni love naa la oo oh, Seyni Seyni love naa la oo oh, yow Seyni yow nopp naa la c'est son papa qui avait chanté ça histoire u Séni euh, à l'époque on disait que dafa nagoon Séni. <laughs> ouais c'était mon papa donc du coup euh, Séni bi li gën a tax ma reprendre ko. Mhm. donc il y a de passage maa ngi koy nuyu de passage euh, Tidiane Gadio. Mhm. donc on s'est vu un truc à Bordeaux. Mhm. après mu ne pourquoi pas nga reprendre ce son papa. parce que c'est papa def na fi lu nekk en fait tu vois. c'est <laughs> disque d'or je pense que moom moo ko njëkk a am fii nii c'était une star planétaire moom la ba moom la ba la ba soose est-ce que yomb na nga gàddu loolu nekk euh, doomu euh, euh, woykat bu mag par exemple Wally warul def erreur yow waroo def erreur est-ce que yomb na ni nga yenoo fardeau boobu non du tout yombul parce que les tu sais gars yi ñoo comprendre en fait mm-hmm. c'est pas facile mais l'erreur est humaine, mhm. même si tu es fille, euh, le fils d'un artiste. Mhm. Donc euh, c'est euh, c'est pas euh, comment dirais-je comment je peux l'appeler c'est pas facile. yombul veut dire que du ma mës a def erreur. mais fardeau boobu franchement c'est pas du tout facile. Mm-hmm, mm-hmm. c'est pas du tout facile waaw. Mm-hmm, en fait peut-être que c'est une question. mais damay dellu si même question que. pour Abiba euh, aide-soignante elle day jàng nekk ndaw di way aide-soignante xam nañu ne doo am jot. comment tu fais pour pour allier allier les deux aussi. alors euh, xam nga rek. <laughs> ben, c'est pas facile en fait parce que ñun des fois dañu nekk de jour wala de nuit mm-hmm. mais euh, je prends par exemple un jour wala deux jours par semaine mm-hmm. donc après ma dem suñu studio et tout répéter avec euh, comment dirais-je l'association et tout donc est-ce que euh, vous avez déjà sorti quelque chose album wala si single bi nga yamagum pour l'instant fan ngeen di produire actuellement ouais, là pour le moment si single bi laa yam donc du coup en France bon ouais, on a eu à faire des choses avec euh, des nids de passage maa ngi koy nuyu donc euh, au Sénégal donc je travaille avec euh, Reptile Musique. Ah, c'est bien c'est bien et tu as beaucoup de projets am nga projet. de projets parce que am na am na single bi ñu déglu léegi nii. Euh, way bu tudd toi et moi am na aussi euh, benn bés et c'est des chansons qu'on peut découvrir je pense sur YouTube euh, parce que da nga da nga yaa ngi bu baax ci réseaux sociaux yi je te vois sur Facebook et tout ça euh, je pense qu'occasion là pour demander aux gens qui ont envie de découvrir musique en attendant peut-être les tëgg ay spectacle day génne album bay def clip ñu découvrir li nga xamante ni yaa ngi koy def qu'est-ce que tu as envie de dire au public sénégalais par rapport ak sa carrière Bijou Alors j'ai envie de dire au public euh, de me soutenir. Euh, voilà, c'était juste pour rendre hommage à mon papa. Ouais. Donc la musique, c'est juste une passion. Mm. C'est juste mm. J'ai toujours aimé euh, chanter. Euh, voilà, donc c'est ça. Mm-hmm. De les voir nous soutenir ma. Voilà, si je fais des erreurs, nous nous recadrer ma. Mm. Voilà, lola et leur public en fait. Ouais, c'est ça. Euh, est-ce que instant béni, je sais, génn ak yëpp, mais ce que tu joues dans les pubs en France? Est-ce que ngay dem si yenn am yenn groupe yooyu àndal di woy et tout. Ah. ouais on le fait en France dañuy dem ci ay resto on le fait à la plage on le fait dans beaucoup d'endroits on le fait surtout l'été donc euh, voilà on le fait ouais. avec okay. l'association c'est bien ça en tout cas on est fiers et euh, de xam ni euh, Laba am na doomam boo xamante ni euh, mu ngi dema dema démarrer carrière am nekk nekk nekk waykat elle vit en France et je rappelle encore que mën ngeen dem sur YouTube pour découvrir way yi nga xamante ni moo ngi koy def Abiba que tu connais ah, yaa ngi koy yaa ko gisee c'est la première fois mais je suis fan de toi oh. elle a une très belle voix c'est vrai j'adore waaw waaw man damay déglu say son yu bari sax vraiment. merci beaucoup waaw waaw qu'est-ce que ça te fait. Oh, plaisir. <laughs> on a eu à se parler. jot ngeen waxtaan quoi bon peut-être après à l'avenir projet. ah mën ngeen def ay mën ngeen def ay ay fusion et cetera ah àdduna ah, ah, àdduna on sait jamais ay ay daje fu ne lay euh, fu ne lay <laughs> juddoo alors euh, da nga ñu indil euh, cadeau muy xale màgg na pourquoi xale màgg na. Bah parce que vraiment là, je me dis que par rapport à ma carrière, mm -hmm. par rapport à mes études et mhm. surtout que vraiment là, je suis à fond dans le milieu professionnel. Mhm. Que ce soit ci jàng bi wala ci carrière bi. Mhm. là franchement je peux dire beneen étape quoi voilà voilà je <laughs> nekkatul ay faux <laughs> quoi. voilà c' est ça léegi dama koy def suspense quoi dama koy téye ba ci kanam avant ngeen koy. non non non non il faut que ma téye ko ba ci kanam balaa ngeen koy. est ce que xam nga euh, balaa ngeen koy découvrir. kan moo lay euh, bindal bind wala une per euh, wala une personne. maa koy bind pour la. majeure partie du temps. Damzee kan moo ko bind. Damzee maa ko bind. avec. Damzee wayu xale la. non je sais mais j'ai envie de savoir en fait rythme bi rythmique bi. nu mu nu mu koy defee quoi. Mm. parce que benn jour mos naa la fekk tournage ci Plaja je pense. oui oui euh, tu la vois très concentrée très pro. c'est c'est assez bon si xale doo ko ko xaaree. Mm. mais euh, quand là on voit on voit que voilà il y a vraiment une machine derrière. donc si biir machine bi voilà c'est pour ça que je voulais savoir. kan mooy bind kan mooy def euh, voilà arrangement bi et tout ça c'est bien huilé voilà c'est ça. bon man may bindal sama bopp vraiment parce que bon bañkat la d'habitude euh, mm. dañ may bëgg a jox sax. Mm-hmm. mais damay xalaat ma ne ça c'est pas moi en fait. c'est pas moi j'aime j'aimerais bien que li may wéy mu doon lu jóge ci même si j'ai des chansons yoo xam ne dama ko bind ah, euh, avec ñoo xam ne dañuy bind ay woy mm-hmm. donc euh, mais quand même sama plupart des sons yëpp c'est moi avec mm-hmm. euh, les amis mm-hmm. surtout je, je m'inspire beaucoup avec eux dañuy toog mën na leen bon dama càng fii wax leen ñuy wax rek ku nekk di wax après ci laay jël rangale jox leen ñu ne waaw c'est bon. après là on valide tous et voilà ça passe. voilà alors euh, yaa ngi jëm euh, si plaza le 3 août. arrosage laa ko tuddee. <laughs> man birthday euh, pour nous pour nous tes ñun arrosage. waaw la ko tuddee donc te birthday party la daje la ak Fancy et ngay def rencontre yu mag yooyu noonu avec tes on voulait pas aller. Aussi Plaza, Plaza. pour cette année. mais euh, bon on a eu euh, des difficultés pour changer pour trouver beneen lieu mhm, mhm. donc euh, ñu ne nañ ko defaat plaza mhm. parce que ren euh, def nañ ko deux fois daaw mooy deuxième fois bi ren mooy troisième fois bi on voulait partir à Sorano mais bon ñoom ils ont duñ fi nekk yombul woon quoi ok ok ñoom duñ fi nekk en ci période bi ñoom duñ nekk vacances voilà moo tax finalement on l'a fait aussi plaza ñu baaxantal def ko pour une pour troisième fois après les choses sérieuses vont vraiment commencer. Mhm. On avec euh, Sorano, Grand Théâtre, on va sortir de, Sénégal. On va, mais voilà. le Magne, vraiment, le déclic. on va le sentir, Inch'Allah, le jour du spectacle. Voilà, mais en même temps, la <laughs> ah, la, filière en, dehors de la musique, bien voilà sincèrement depuis toute petite j'ai jamais musuma yaakaar am liggéey ci ci man j'ai toujours été non musique laay def Après, bon, oui, là, je sais pas. Il y a des euh, écoles, il y a des oui, écoles de musique. Bac et oui, tout bien ça, sûr. Mais bon, ñu bëri nga may proposé defal euh, commerce international, defal lii, defal lii. Mm. Mais Toi, je pense que, que je vais me retrouver. Voilà, je sais pas ce que je veux. Je sais pas encore. Je suis perdue. Je suis à toute l'université pour découvrir. Voilà. <laughs> parce que euh, qu'est-ce que ça te fait boo toogee France bi jour di xool woykat yi nekk Sénégal xale yi surtout di cartonner ça te donne pas envie de de revenir. sincèrement ça me donne envie de revenir mhm. franchement. Mm -hmm. ouais. waaw ah, parce que gars yi ñu ngi góorgóorlu fii de. waaw ah, ah. fii moom <laughs> vraiment fii moom euh, nous sommes presque au terme de cette émission ñu ngi waaj a euh, waaj jeexal euh, ñu fàttaliwaat leen samedi 3 août donc 17h si Plaza Abiba birthday party mais feetu bachelier yi nekk Sénégal yëpp la ñu ngi leen ci woo je vous donne juste ay numéro de téléphone yoo xamante ni peut-être bu ngeen bëggee ticket bu ngeen ci wootee ñu jox leen ko est-ce que mën nga ma woonaa leen affiche bi en même temps s'il te plaît comme ça mu mën lire numéro téléphone yi merci 77 831 56 81 wala 77 666 76 00 wala 77 803 euh, euh, euh, pour le 3 août xale màgg na on